da ngay dellu da ngay demaat à la reconquête de de de de Guédiawaye. Ahmed Aïdara n'a pas encore fait deux ans yu mot yow tamit. bàyyi ko ba mu ba mu dawal ba ci kanam ma doo ma doog a xool ensuite xam nga aussi maa ngi dans un parti nekk dans une coalition su ñu demee ba yegg ci élection dinañu juger nécessaire kan mooy war a dem euh, pour présenter wu mais li am solo mooy sama diggante ak Guédiawaye euh, loolu moom euh, défaite sunu défaite 2021 bi entamé wu ci dara au contraire. je suis encore aujourd'hui plus attaché à la ville de Guédiawaye et aux populations de Guédiawaye. mais nga gisee euh, les les les deux ans d'exercice de ton de ton de ton de ton successeur. de Ahmed waaw noo noo gisee yorinam. alors bon man d'abord euh, je, je tiens à dire Ahmed baal naa ko àq parce que publiquement def ma baalu àq baal naa ko àq. Euh, d'ailleurs même man su fekkee fàttaliku ma ko fen fu ma ko ma sa tooñee man it baalu naa ko ak publiquement mu baalu mu baal ma ak donc amatul je crois rien de personnel boo xam ne nekk na ma diggante ak en tout cas man. amul ah Lat Diop de nangu koo baal. waaw euh, xam nga Lat nag moom il un tempérament <laughs> un peu différent un peu différent euh, même si sur d'autres questions keroog tooñ naa ko ne ko non léegi nag remarqué naa que vraiment yaa ngi muñ. <laughs> parce que temps yi lay attaqué nañ ko fi attaque yu métti mu taxaw rek ne xum bañ a <laughs> ma woo ko di ko tooñ ma ne ko mais vraiment léegi moom da nga changé gisuma ngay réagir hmm. donc euh, nit aussi dafay dafay évoluer par rapport à certaines choses